projet port Bundayan euh, dina yemb ci agenda buñ ko teural projet bu melni Sénégal dafa jël partenaire bu am solo bu ñu DP World Sénégal mom ci projet bi 40 pour cent téeméer yu ne fukki yi état du Sénégal ko mom mais ci lolu état du Sénégal dafa war a teral suuf si ko jox ko projet bi ci lolu ñi ngi am 1200 hectares 300 hectares yo xamné port diitu woon moko mom ñenti euh, ñenti téméru hectare yo xamné port autonome de Dakar état du Sénégal moko mom moom juróom benni téeméeri hectares yoo xam zone industrielle la ci anam gogou recensement yu ñu def ci njitalu préfet bu Rufisque ak préfet bu Mbour génne na juróomi junni ak ñenti téméri doomi adam yo xamné dañ leen impacté ñi am ay souf kessé ñi am ay tol kessé ñi am ay kër yu am solo kër yoo xam ne jëmm gi gis ngeen ko fii ñu def ay conciliation waxtaan ak ñoom ñu nangu liñ leen proposé président Macky Sall ni préfet respecté leen teg ci état yi ba pare président teg ci buuñaa boo xam ne dina faciliter adhésion yi ñëpp signé nañu jot nañu seeni chèque semaine dernière joxe nañu ñaari milliards ci xaalis ci ñoo xam ne moom ñuy toj seen i kër nii juróomi milliards mooy phase prioritaire phase boo xam ne dafa xaw a jàmp boo xam ne il faut ñu defar ko fukki ak juróomi milliards moy projet bi yëpp ñii nak dañu jot seen chèque d'accord nanguko, ko jël seen chèque déménager jëli seen marchandises seen télévision seen lal ñëw vider seen piscine ñu war a fi di démolir depuis une semaine manam ñu ngi ak force de défense et de sécurité sécuriser zone bi dembu ci goudi gendarmerie dañu dem ci kër yëpp yoo xam ne déménager nañu xool ndax kenn nekku fa amul lenn loo xam ne mun na gaañ nit moo tax ñu démarré tey am apaisement le président Macky a démarré démarré projet le 1er avril 2024 Le projet bi livré ci pardon juróomi donc 48 mois dinañ ko le 1er avril 2027 Nous ko continuer engins la semaine bi passé le port de Dakar ben gal, yebbi

mais ñu ngi defar faire port bu am solo bu gën am solo ci walu sous région bi président Macky Sall dafa réussir Ebu ferroviaire ci walu rail li mu fi def ci raay kenn ci Afrique mu réussir ci walu aéroport li mu fi def ci aéroport kenn defu ci Afrique mu réussir ci walu autoroute à péage ay autoroute yo xam ne ay ay ay am solo président Macky Sall jël na décision aussi réussir ci loolu ci walu port projet bu priorité ci walu liggéey mooy ndaw yi fii yi fi dëkk jël nañu luwe nañu ñeenti kër ñetti kër ci ci ci zone yo xamné dañu impacté moy luwe nañu ben maison de projet à Dias ñu am ben maison de projet à Yène am ben maison de projet à Toubab Dialaw ak ben maison à Ndayane xalé wu dëkk yo xamné ne ñooy fanaan fii di xëye fi ño fay liggéey ak suñu ay ndaw ba paré aussi liggéey bo fi gis gilet jaune yo fi gis ñu liggéey ñom ñëpp ci fi lañ joggé ci diwan bi donc dinañu euh laaj xalé yépp ku bëgg liggéey am CV demal ci kër yo xam këru projet bi dañ ko def fi ci zone bi nga déposer sa CV wara a ci projet parce que la priorité à l'emploi est réservée aux jeunes des localités. dama projet bi c'est en 48 mois ñu avons ko démarrer le 1er avril 2024 dinañ ko livrer le 1er avril 2027 état responsabilité état moy nga am sa partenaire bu yor xaalis yor xam-xam wara mëna mën ñëw développer lu melni port état bokk ci témer yu né 40 pour cent yi ñoo ko ci walu témer yu né nous fukki état ci projet bi ci lolu Nous junni ak impacté ñu définir phase prioritaire phase prioritaire bi nous nañu milliards ci milliards yi nañu milliards parce que il faut concilier wane ay papier wane ya la sa jox nañu signé nañu di toj pour commencer